depuis qu'il est euh, premier ministre. waaw mais loolu style la xam nga euh, premier ministre Ousmane Sonko c'est quelqu'un de direct. Mhm. cest li mu xalaat moom lay wax li mu gëm moom lay wax. mën na mën am mu am ñu si ànd ñu am ñu si àndul style la. Mhm. style la noonu lay communiquer mais yaakaar naa ne su fekkee nekk nga euh, premier ministre et puis nekk premier ministre boo xam ne euh, premier ministre bu am doole la ci wàllu politique war na. xoolaat communication wam parce que communication bu direct trop dafay heurter maanaam dafay euh, dafay daal euh, mel ni dafay euh, dafay dal ci kaw nit ñi noo xamante ne mm. peut-être ni ñu koy ressentir mën na nekk lu leen di frustré wala lu leen di lu leen di gaañ mm-hmm. et puis loolu aussi peut-être war nañ ko moytu parce que ki nga xam ne dañ ko fal ñëpp ànd ak moom yaakaar ko donc suy wax ak askan wi am na nu ma war a waxee parce que askan wi moo ko fi teg. bi mu nekkee opposition euh, doon na ko réussir euh, parce que plus mu doon waxee noonu am ñu critiqué mais n'empêche il il du terrain en en politique. aujourd'hui euh, est-ce que du loolu moo ko topp ba tey maanaam mu war a xam ne nag là c'est un premier ministre pour tout le Sénégal et que buy wax dafa war a éviter loo xam ne dafay dafay dafay diviser. waaw je pense que. Oh, oh, bon booy seet sax yóbbu mën naa ne erreur de communication la mais. booy seet parce que fait. waxul c'est pas la première fois. waaw bu bi benn la ci. Mhm. on a vu avec la presse ci ci impôts yi on a vu peut-être avec. Euh, euh, France benn beneen la ci maanaam plus à chaque fois muy génn dañuy seetlu ne waxam mën na am ñoo xam ne mën na leen mën na leen laal. waaw c'est-à-dire ci presse bi li mu wax euh, nee ñu wax bu gaañee nopp dina jafe mu jëriñ xel c'est que lu ñu wax rek mën nañ ko wax ci anam yoo. xam ne même si bu dëgg moo ne à la dinañ ko wodd ba nga xam nit ñi dinañ ko mën a dégg. voilà parce Euh, wax neex na waaye dégg ko dàq donc il faut qu'on fasse attention ci ni ñu communiquer et loolu je pense que lu lu am solo la euh, surtout bu fekkee da nga yore euh, da nga da ngay gérer ay responsabilités mhm. il y a 18 de Sénégalais yi yow yaa yore yaa yow yaay responsable bi nga xam ne yaa yore seen dund yaa yore pratiquement seen kaaraange yaa yore seen emploi yaa yore seen santé yaa yore seen lépp mhm. donc loolu mënul nekk ak ki nga xam ne dafa nekk ci kujje mujj ñaari position yi euh, ñaari position yu wute la donc mm-hmm. soo changé position booy wax da ngay xam ne euh, yaa ngi wax euh, pour dix-huit millions de sénégalais te jox nañ la sañ-sañ yëpp yi nga xam ne moom nga war a soxla ngir doxal réew mi donc war nañu xoolaat ci côté boobu communication bi parce que tey France dëgg la am na relation bu ñu am ak France depuis très longtemps mais war nañ ko xoolaat loolu ñëpp d'accord nañ ci mm-hmm. ñëpp d'accord nañ ci mais xëy na ci waxin bi mën nañ ko waxe neneen mhm. waxe ko neneen parce que euh, kenn mënul reprocher Euh, njiit njiitu France yi ñu défendre seen intérêt réew parce que ñoom xam nañu lu tax ñu fal leen léegi ñun suñuy njiit ñoo war a fexe ñoom i tamit euh, li tax ñu fal leen ñu doxal ko ba mu mot sëkk te mm-hmm. loolu le président euh, loolu le président Bassirou Diomaye wax loolu la premier ministre Ousmane ko wax cest à diir que ñu def de partenariats gagnant-gagnant lépp loo xam ne Sénégal daf koy jëflante ak France Sénégal mun ci gis boppam intérêt Sénégal ñu ñoŋal ko jiital ko wante itamit bañ a tëju suñu relation ak France tijjeeku ci yeneen euh, réew yi nga xam ne am nañ doole ci àdduna bi mooy États-Unis muy Chine muy Brésil muy Inde muy bépp réew boo mm-hmm. xam ne mën na jëriñ Sénégal je pense que loolu mooy farata bi